génn ci élection yoo xamante ni askan bi vraiment euh, dañu euh, plébiscité le président de la république Bassirou Diomaye Faye euh, ci projet souveraineté projet souveraineté mooy Sénégal moom boppam Sénégal bu moom boppam rek li mu tekki mooy secteur privé bu fort kon defee secteur privé bi moom moo mun a jox ndaw ñi liggéey mais secteur privé bu fort balaa muy mun a fort il faut que état bi jàppale ko donc état appelé le secteur privé ça veut dire que l'État a xamante fait itamit dafay fort alors bu ko defee man nous nga xam man maa jiitee comme, koom ak coopération ak plan ak suma finances, finance nous euh, liggéey ensemble faire euh, état fort euh, bu ko defee mu mun a secteur privé wutal xale yi liggéey et mun financer tous les projets sociaux du pays. Le ministre des finances et du budget ci contexte bi. du lu yomb lu là. waaye nag jafewul ndax bu la fekkee ne kilifa yi la ko dénk ñu ngi lay gunge euh, di la jàppale ci liggéeyin bi mën nañ ci am ay résultats yu yu yu am solo yi nga xam ne moom la Sénégalais yi di xaar résultats yooyu ci ñaari fànn lay lay jógee mooy ne ñun ñoo yor koom bi koom-koom bi ci wàllu ci wàllu koppar xaalisu Sénégal ñu war fexe naka lañ koy naka la fexee ba mu am solo ba mu yokk loolu mooy li ci jiitu beneen bi mooy xaalis boobu buñ ko jotee naka lañuy ñuy fexee ba ba dépensé ko ci anam bu mu gën a mu gën a yaxane waaye bu mu gën a efficace ci ci ci pour permettre euh, ñu atteindre objectif yi nga xam ne moom lañu fixé. li gën a am solo ci yéene bi ñuy yéene ci kaaraange réew mi mooy gën a jege askan wi gën a waxtaan ak ñoom gën a indi euh, waxtaan ci diggante askan wi ak police diggante askan wi ak administration ba nga xam ne. seen diggante dina gën a ratax parce que temps yi passé diggante bi xawoon na njagas ci loolu la ñuy gën a tabax ci loolu la ñuy gën a taxaw ci loolu la ñuy gën a ci liggéey bi ñu jox. sant yàlla nag dolli ko ci liñ ko santoon julli ci yonente bi salaalaahu wasalaam ngir euh, li nga xam ne lii moom la sénégalais ñu ci ñu taxawal ko nee nañ ko respecté loolu mooy yaakaar gi sénégalais yi am ci teg ko ci équipe bii muy euh, président euh, Bassirou Diomaye fay ak premier ministre am ak tamit gouvernement bi ñu taxawal ngir ñu liggéey ñun ñëpp jàppalante ngir sénégalais yi li ñuy xaar ci ñun ñu def ko. ñu boole ci tamit ni ñu ngi dëgg ay ay ay ay waxtaan ay liggéey yu am solo ci suñu ministère bi ñu dénk ministère bi nga xam ne dañu war a feex ba kuréel yi nga xam ne moo nekk kuréel ci Afrique ñu jàppale leen ñu taxaw leen ñu dooleel leen te Sénégal am na ci. cër bu rëy bu mën a bu mën a bu mën a joué boole ci tamit ministère des affaires étrangères mooy ministère la boo xam ne bi dafay liggéey lépp lu ñëpp ci mbirum bitim réew ak ak ak ak ak suñu suñu diggale diggante bitim réew ñu war ko suuxat nag ba sénégalais yi ak Sénégal ci boppam am taxawaay bu rëy ci àddina bi ta taxawaay bu am solo ci ci loolu la ñu liggéey